yéen ñi nga xam ne yéen ngi topp Al Azhar Touba point com di leen di nuyu te di leen ziyaar te di leen balu àq di leen baal àq ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu boole ñun ñëpp jéggal suñuy bàkkaar te xiir ñu ci ak njub te saxal ñu ci di jaahil xadim wa isati sanadil maxdumi sallallahu taala alayhi wa tey ñu ñëw ci seen émission Al Académia andil leen baatub laa ilaha illallah muhammadun rasulullah faram fàcceel leen ko laa ilaha illallah muhammadun rasulullah xam ngeen ne baatub laa ilaha illallah lu gàtt la ci wax waaye lu gudd la ci maana te mboolem yi ñu war a gëm yépp mi ngi ci biir baatub laa ilaha illallah muhammadun rasulullah moo tax fiig nit ki waxagu ko di ko mën jàppe ab jullit waaye su ko nit ki xësee wax nag ñu jàpp ne jullit la te biir ba nag la ca nekk ñu bàyyi kook suñu borom waaye dañuy jàpp ne jullit la bu ko waxee ba noppi nag gannaaw bi mu dellu nanguwu ko wax bu boobaa it dañuy jàpp ne kooku dafa murtat maanaam dafa duggoon ci diine génnat baatub laa ilaha illa nag boo ko bëggee firi dangay ngay njëkk a firi baatub allahu allahu mooy koo xam ne nii soxlaalul kenn walla lenn lenn te ku nekk walla lu nekk soxlaal na ko lu ne loolu mooy baatu allah muhammadun rasulullah boo ko bëggee tekki danga nga naan muhammad jaamub yàlla tey ndawam di ndaw loo xam ne nii moom la yónni ci mbindéef yi lu mu wax yàllaa ko ko waxloo lu mu def yàllaa ko ko defloo te loolu ku ci weddi dara lu mu tuuti tuuti te tay ko dañ lay daal jàppe ku nekkul ci diine ab yéefar maanaa bu fekkee nag la mu weddi moom waa jooju day lu nëbb loo xam ne nii gëstuwu ko bu baax looloo tax mu lënt ci moom kon dañ ko koy xamal rek kon daal ku ci yokk dara ci noonu nii ñu war a gëmee yàlla walla mu wàññi ko ci Euh, du ñu rafetlu ak ngëmam baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nag ñu bëggee nit wax ko mooy dañuy bëgg jox nit ki ay firnde yu leer nañ ne ko yàlla suñ boroom subhanahu wa lu am la ndax mooy li nga xam ne moo njëkk ci diine muy ngëm bu sikkee rek lépp sikk kon lenn rek wone ne na yàlla lu am la te loolu mooy doomu aadama ba mu amee ba léegi tàmbulee ko ci ña fi nekkoon bu jëkk ku ci rafetum xel dinga xam ne am na ku la sàkk kenn du wax ne maa sàkk sama bopp wala diw moo ma sàkk am nga ku la sàkk te kooko ka sàkk ku la sàkk kooke xamoo ko kooke nag mooy sunu borom subhaanahu wa ndax asamaan sii ni mu kawee te dara tayewu ko fees dell ak i biddiw ak i galaxie suuf si ni mu yaatoo te géej gee ko ëpp jant bi di ñu niital muy lumière boo xam ne nii te xam ngeen vitesse de lumière mi ngi daw trois cent millions kilomètres à la seconde moom lumière jant bi soree ñu cent cinquante millions kilomètres te lu ñuy sore sore yépp mi ngi ñuy jox leer gi ñu soxla di ñu jox njariñ liñ soxla di ñu jox tàngoor wiñ soxla te ba ko yàlla sàkkee ba léegi mi ngi ci ndigal loolu mësu ko wàcc weer wi na mu nekkee noonu la noor bi nawet bi guddi gi bëccëg yi yii yépp doomu aadama bu fi mas ñëw ci àdduna fi la ko fekk te bi muy demit fi la ko bàyyi kon loolu ñàkkul ku leen sàkk ñàkkul ku leen di doxal ñàkkul ku leen di jox ndigal ñu di ko jëfe te kookee du kenn ku dul yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala bu fekkee nag nit nit ñu nekk am na nu ñu jàppee yàlla ku nekk am na nu mu jàppee yàlla waaye nag koo xam ne nii moom dafa jàpp ne yàlla amul kenn sàkkul kenn àdduna bi dafa jekki-jekki rek tandu loolu moom bu ameet bariwut bu ameet bariwut kon xel moom yi boo ci xalaatee bu baax te setantal ko dana la mujj wóor ne yàlla sunu borom lu am la te amam gi amul benn sikk loolu nag boo ko bëggee xam bu baax dangay xalaat ne yow daal li nga mën a xam mooy lépp lu nekk fi barab dafa am lu ko fi teg moo tax mu nekk fi micro bii may waxee man maa ko fi teg moo tax mu nekk fi caméra bii ma tiim di ma filmer dañ ko fee teg waaye jékki-jékkiwul rek nekk fi néeg bii nga nekk jékki-jékkiwul am dañ ko fee teg mu doog a nekk sa dàll yee nga summi daa am ku ko fa teg moo tax mu nekk fi lu nekk rek dañ ko fee teg moo tax mu nekk fi waaye lenn ci lii jékki-jékkiwul rek am kon nag boo xoolee yow sa jëmmu yow sa jëmmi bopp rek muy sa xel mi muy sa bët yi muy sa nopp yi muy sa róog yi nga xool asamaan te jant bi suuf si ak géej yi ak rab yi ak garab yi mbindeef yi ni ñu baree ba kenn mënu leen lim ak ni ñu wuutee ci biir ak ci bitti nga xam ne daal jékki-jékki rek am faw rekk am na ku leen amal am na benn boroom xam-xam boo xam ne nii du jullit moom dafa wax ne mënta gëm ne àdduna bi dafa tàndu mënta gëm ne amul ku ko amal walla boog bala mu ko mën a gëm dañ koo jox clavier ordinateur jox ko benn golo golo gi di cëpp cëppi ji clavier bi ba bind ñaar walla ñetti phrase yu complet yoo xam ne ni virgule yi ak point yi yëpp mi ngi ci mu doog a nangu ne àdduna bi dafa tàndu kon kooku mel na ne gëm na ne àdduna bi am na ku ko def waaye sax ngëmam des na ndax jullit ñoom jullit dëgg dëgg dëgg golo googu muy wax su bindoon ab livre bu complet sax wërta tax mu gëm ne àdduna bi dafa tàndu dangay jàpp ne loola suñ borom mën na ko mën naa jël ak golo su ko neexee ci coobareem mu cëppi cëppi ba bindul livre kon kii bind lépp kenn la war a doon muy yàlla ndax bu dee jëmm ju taxaw fenn yàlla bu bu fekkee nit ki da ko bëgg a tasawur comme jëmm ju taxaw fenn kon loolu day daal di dellu ci li waxoon nekk lu nekk am na ku ko bind te loolu mooy lépp lu nekk fi barab am na ku ko fa teg boo ko bëggee jox jëmm rek kon da nga naan jëmm jooju am na ku ko fa teg am na ku ko defar moo tax mu nekk kon yàlla du lu ñuy xalaate noonu lu ñuy gëm la waaye du lu ñuy xam te yàlla boo bëggee ne am na ko ko sàkk tam ba léegi da nga dugg ci gaam boo xam ne nii doo ca génn ndax boo nee am na ku ko sàkk kookee ko sàkk faw nga wuutal ko ko sàkk kookeet nga wutalaat ko ko sàkk muy law-law yi te bu boobaa xel du nangu lool li xel mën a nangu daal mooy nga ne li am lépp am na ku ko sàkk kookee ko sàkk nag kenn sàkk ko kenn xamul na mu mel te kenn mënu ko xalaat ba xam ko loolu mooy li xel mën a nangu mooy li xel mën a jàpp bul wax ne nag mukk bala maa gëm ne yàlla am na faw damay xam na mu mel ndax loolu boo ko defee euh, du du du jëm fenn ndax masalan boo dégloo oto bu corné da nga xam ne oto nag mi ngi corné taxaw na foofu waaye xamoo na mu mel boo déggee nit di wax itam da xam ne nit a ngi wax waaye xamoo na mu mel yow ci sa bopp nga gëm ne am nga am xel te xamoo xel moomu na mu mel boo mokkalee dara. masalan nga mokkal suratu fatiha boo ko bëggee tari da ngay jekki-jekki rek mu ñëw am na fu mu nekkoon ci yow ba génn ba nga tari ko loola anamu yaa ngi ko gëm waaye xamoo ko mënoo ko laal gëm nga ne am nga xol rek waaye xamoo na mu mel xamoo lu ca sikk danga koo gëm rek loolu mooy gëm da gëm loo xam ne nii xam nga ne am na amoo ci benn sikk ne am na waaye nag xamoo na mu mel mooy yàlla suñu borom mooy ni ma la ko misaale rek ci nit ki nga dégg muy wax dina leer nañ ni nit a ngi wax fii waaye nag na mu mel ak ak ak ak mooy kan mën nga koo bañ a xam kon daal lenn lu ci nekk danga ci am firnde yu wóor moo tax nga gëm ko nangu ko ba mel ne yaa ngi koy gis donte gisoo ko noonu la ñuy gëme yàlla ba tey yàlla suñu borom subhaanahu wa la firnde yi koy mën a euh, firnde yi koy mën a wone mën nga cee sukkandiku ba gëm ko nangu ko te donte gisoo ko euh, boole ca nag àdduna ba mu sosoo ba léegi ba àdduna sosoo ba léegi ak euh, jamono ni mu yàggee yonent yi yàlla wàcce yépp nga xam ne dañ ne téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent la yàlla wàcce boo ci boolee anbiya yi ak mursaluna yépp te ku ci mësa dikk rek benn wax bi lay wax mooy yàlla am na te it na ngeen ko jaamu moo tax fi ne nii àddina li muy yaatu yaatu mënees naa wax ni ñetti diine rekk ñoo fi nekk muy diine yahud diiney nasaraan ak diiney waaye yeneen diine yi euh, bu ñu fi amee itam maanaam bariwuñ fi waaye diiney yahud diiney nasaraan ak diiney lislaam ñooy diine yi nga xam ne nii daanaka ñoo fi ëpp te diine yooyu yépp maase nañ ci saxal ne yàlla am na maase nañ ci saxal ne bis ci am na maase nañ saxalte ñi ni lu waaye def ñu fay ko ko bu dee lu baax mu tàbbi àjjana bu dee lu bon mu yeyoo sawara ba tey bokk na ci liy wone ne yàlla am na saa yoo waxee ne yàlla amut doo ko mën a layal loolu nga wax doo ci mën a indi benn firnde bu leer bu ko mën a layal te loo xam ne nag foo xool gis ko tegtal yi bari lool comme li ma la joxoon ci gannaaw géej yeeg suuf yeeg asamaan seeg galaxie yeeg biddiw yeeg yooyu yëpp nga xam ne foo xool rek gis tegtal buy xam tegtal yàlla am na mu leer nañ kon moo gën ngay tënku ci loo xam ne ni njortu rekk la te njortu moom jamono yu nekk ñuy gis muy nax nit gëm yàlla nag ni ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam jàngalee juróom benn xaaj la gëm yàlla gëm malaayika yi gëm téere yi gëm bis ak gëm dogal bi yooyu mooy yi nga xam ne nii moom la yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama jàngale bokkaale nag day yàq ngëm moom lu mat a xàmmee la te moytu ko ndax sunu boroom dafa wax ne ku ko def li nga jotoon a jëf yépp dafay yàqu dafa yàqu te booba sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama lay waxal yonente bi sallallahu alayhi yàlla na ko wax ci alquran ne wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala na min alxaasirin bokkaale nag baat bi mu ngi juddi ci bokk mu ngi juddoo ci bokk maanaam euh, euh, maanaam loo xam ne ni lenn la woon nga dolli ca leneen nga bokkaale ca leneen lu mel ne baatu wut ngay wut ba pare di wutaale wala ngay wax di di di waxaale leneen dégg nga liñ naan ci wolof dàqu ginaar waxaale say soxla nga xam ne yaa ngi def lii waaye yaa ngi ci defaale leneen lu ci bokkul kon baat bi lool la waaye euh, euh, bokkaale euh, ki nga xam ne sax moom dafa wedd yàlla kooku du bokkaale ndax dafa gëmul yàlla ba koy bokkaale kon ki gëm yàlla moo mën a bokkaale ki gëm yàlla moo mën a bokkaale lu mel ne yàlla mi nga xam ne nii moo sàkk mbindéef yi nga gëm ko di ko jaamu am kaneen koo xam ne nii daa nekk ca wet ga nga koy jaamuwaale wala laneen nekk ca wet ga di koy jaamuwaale loolu moo tudd bokkaale waaye ki nga xam ne yàlla ci boppam la gëmut nag moom bu boobaa tuddul sax moom bokkaale kon mbokk yi euh, ñi ngi yam fii ci seen émission Al Academia li leen andiloon tey moo di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon ñu ngi leen di jox dig dig daje ci beneen yoon wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.